place wax mënul ñàkk surtout boo laalee lu sensible Sénégal boo laalee lu sensible ñëpp ay jóg wax mais wax bi du teye li ñu war a def ñu def ko mooy lan def état des lieux. Mhm. bu xoolee ne Pape Diop moom jox nañ ko fa 10 hectares en compensation d'un hôtel à Saint-Louis bu état bi jël ci moom loolu expropriation la. Mhm. déjà man sax sama xel mu ngi si tey ci procédure expropriation boobu. Mhm. parce expropriation. dañ ko encadré. dañ ko encadré loi bi daf ko encadré dañ na yow bu état soxlaa sa terrain dafa am une commission boo xam ne moom mooy évaluer donc il y une commission euh, chargée du contrôle des opérations domaniales. bu mhm. ñooñu noonu ñooy étudier la demande ñu jox ko. benn comité de conciliation comité de conciliation boobu ay services techniques de l'État ñëpp a siy bokk. Mhm. bu ñu xoolee ne li la war a récupérer nii valeur bi temps la loi bi daf ne dañ la war a indemniser à juste valeur suñ la ko indemniser balaa ñuy jël suuf si dañ war na dugg si sa compte teg sa loxo bu pare. kon Pape Diop nan lañ mënee jël hôtel am à Saint-Louis. Mhm. toog ba après di ko jox compensation ci ay terrain Thiès. Mhm. ça veut dire que même le pro le, la procédure. d'expropriation bi mhm. baaxul ci yoon ah léegi. loolu benn fait oui oui rapidement deuxième fait bi mooy. bu ñu xoolee ne effectivement li ñu jël si moom valeur bi équivalent na. ba xam 10 hectares moom dossier normal lay nekk man en tant que auditeur dama naan dossier normal mhm. sur cent dossier ma étudier waat dossier anormal ma teg gauche mhm. dossier normal droite dossier anormal gos bu ñu paree dossier normal yëpp dinañ ne yéen amu leen problème seen suuf ni ngeen ko amee c'est légal ñi nga xam ne normalul bu boobaa nag dinañ ne yéen ni ngeen amee seen suuf normalul par conséquent état da koy jëlaat redistribuer waat ko aux ayants droit. ngi déglu les explications de l'ancien ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou Sow revenant sur euh, le cas Idrissa Seck parce que dañ ko tudd ci mbir mi que ne am na ci lu bëri ce que ce qu'il a dit le ministre l'ancien ministre mooy que ne dafa joué woon benn rôle intermédiaire boo xam ne euh, les terrains allaient au profit de quelqu'un d'autre ma turam nu def ba feeñ ci nag looloo indi problème bi li mu joxe comme explication est-ce que c'est convaincant wala am na lu xaw a tey xel toujours de e-, explication boobu noonu dafay wone ay ay doute mhm. dafay wone benn nébulosité bu graaw mhm. bu ñu demee ba ne ancien premier ministre Idrissa Seck avec tout le respect que je muy dugg ci ay intermédiation suuf ba tey turam di ci feeñ ñu jàpp ne moom la ci feeñ ay deux deux deux cent deux cent hectares te mun nañ def rapprochement sur le plan politique mburu at soow mhm. lan moo tax mu ñëw ànd ak Macky qu'est-ce qu'il y avait derrière. qu'est-ce qu'il y avait derrière peut-être moo tax ñu espérer une enquête sérieuse bu mën a. régler lépp une enquête sérieuse doit sur le cas de Thiès. Mhm. sur le cas de la Corniche maa ngi dégg ñu naan non c'est l'éminent euh, maître Doudou mhm. professeur mu ne état amul droit arrêter les travaux état yoon daf ko may bu problème amee mu def mesure conservatoire mesure conservatoire mooy nga arrêter. ci benn diir ñu xool. mais loolu aussi day am ay conséquences ci tout ce qui avait été entamé déjà. conséquences du ñàkk des conséquences économiques parce que les entreprises qui travaillent. exactement l'emploi et tout. loolu yëpp état daf koy jël en compte. loolu tax na sax état yenn mesures yi du si dem à fond. mais mais est-ce qu'on espère pas ça nag. que mu tàmbali ko dem ci jusqu'au bout. ñu xam responsabilité yi. bii dañ ci war a dem au fond parce que bii c'est crucial. waaw gis nga Mamadou bi may ñëw. xam nga yaa ngi naan dafa il suffit benn courage bu ñu war a am pour ñu mën a xam les responsabilités. bi may ñëw maa ngi jaar Almadi nii di ñëw ba fii gisuma ko gisuma géej gi. Mhm. su ma ko gisee peut-être c'est presque monument de la renaissance bi laa ko gisee. il y a 2000 moi j'étais à l'université Anta Diop 2000 ba 2004 ñun bu ñ génnee dañ doon dem côté terrou di sangu ci plage bi. plage bi on avait remarqué en tant que étudiant chaque année hôtel bi day pousse. di hmm. pousse benn moment am na un incident ñun ñu dem foofu noonu ñu ne ñu doo leen sangu fii moo am ñu bari étudiants yu bari fipp hmm. ne leen lii c'est le domaine national boobu la privatisation a commencé. boobu la commencé di nga doon gis plage bi mais après gis nañ ne fermé nañ lépp. kenn am du fa accès. te loolu rafetul ci Sénégal gis nga yenn dëkk yu développé yi te ñu am seen tourisme dox. seen littoral dañ koy préserver. Mhm. littoral bi à côté de la mer à droite de de la route à droite foofu dara waru fa am. xam nga lu fa war a am des infrastructures yoo xam ne c'est facile à enlever loolu la loi bi wax. Mhm. waroo fa def loo xam ne c'est en dur danga fa war a def loo xam ne. bu ñu ko bëggee dindi dindi bi day yomb facilement mais ay immeuble nga fa gis. ah léegi le régime du président Diomaye ni mu commencé euh, ban jàngat nga ciy def parce que euh, bëri na coow loo xam ne dafa jëm ci wàllum euh, leeral lu fi nekkoon dans le passé Euh, volonté bi euh, reddition des comptes la euh, transparence wala y'a autre chose mën a lire derrière parce que aussi dafa tombé trop le foncier les rapports de l'OFNAC de l'IGE Cour des comptes tout ça vient au même moment fondement bi yëpp c'est la transparence dégg nga ñu ne jub jubanti et jubal mhm. transparence dafa ànd ak reddition des comptes parce que reddition des comptes mooy chaque année képp ku gérer nga ne man lii laa gérer nii laa ko gérer mhm. mu am corps de contrôle bu ñëw contrôler la ne la nii nga gérer lii baax na lii baaxul loolu c'est la routine loolu waruñ si woon sax di discuter di werante mais est-ce que tout doit être ci place publique bi ñuy vilipender ay nit yoo xam ne amaana sax seen responsabilité egg eggul fenn fi euh, bu nekkee à titre individuel des personnes nit amoo droit taxaw di vilipender nit mais dafa am loo xam ne boo nangoo gérer da ngay nangu sa gestion ñu mettre ko sur la place publique looloo tax loi jox corps de contrôle yi yu mel ni OFNAC ak cour des comptes ak IGE. Mhm. ñuy publier publier seen rapport di ko publier. Mhm. rapport individuel. cour des comptes bu paree benn rapport loi bi daf ne ko da ko war a publier waroo xaar sax fin d'année ngay boole lépp di publier ndox. Mhm. bu ñu demee ba wax loolu c'est parce que c'est la transparence moom la ñuy prôné te képp ku gérer un franc de l'État amatuñ lu ñuy nëbb ci yow ci gestion bi nga def ci un franc. il y a toujours eu des rapports ah mais suite am c'est ce qu'on a reproché au espérons qu'avec le président Diomaye yëf yi dina leer du yem rek ci publier ko vilipender nit ñi après mu yem non man dama gëm loolu chaque année bu rapport amee ñu situer les responsabilités te le mhm. président Diomaye ni mu wax ak ni mu ñëwee ak acte yi muy posé eh, foofu la jëm moom nag image am ak antécédent yam war na mun a tax mu mën a def loolu mu ñu gëm loolu mhm. parce que moom ñëpp gis nañ ko il a fait quinze ans aux impôts et domaines bokkul ci enrichissement illicite bokkul ci ñu am ay kër bokkut ci ñum oui mais il n'est pas pauvre aussi hein il n'est pas non, pauvre non on plus. peut pas inspecteur. a vu sa déclaration de patrimoine ah, ah, ah. deux véhicules benn maison à Mermoz terrain bu mag Sandiara ak yeneen ak yeneen c'est écoutez moi moi j'attendais plus même de lui ah écoute un inspecteur des impôts c'est la hiérarchie la haute hiérarchie mhm. des impôts déjà ils ont de très bons salaires déjà si seen liggéey bi ñuy def di redresser ay sociétés dañ si am lu ñu tuddee eh, des des des primes mhm. Euh, fonk commun dañ ko siy am. ça avantage yu ëpp dayoo aussi loo tax war nañ ci wax. ëpp dayoo tey jii nii man li may ñaan mooy ñoom comme xam nañ si lañ bokkoon xam nañ ko léegi nekkatuñ ko xam nañ eh, li si bon at li si baax. Mhm. man li ma gëm mooy ñu tegaat lépp. ñu tegaat lépp sur la table mooy lan ñu defaat maintenant une nouvelle. grille de rémunération parce des que, agents du public. parce que yu mel noonu. mooy merloo am déséquilibre exactement c'est ce qui amul équité. loolu mooy merloo askan wi tey un médecin. bi un douanier il faut avoir le courage de le dire un douanier nga xam ne médecin bi moo ko peut-être ñoo yem jàng wala médecin bi moo ko gën a jàng yemuñ ay rémunération mhm. un inspecteur du trésor de la la même chose un inspecteur des impôts la même chose donc régie financière yi dañ leen favoriser de trop. Mhm. li war a am mooy. képp ku nekk impôt yow yaa ko bëgg yow yaa dem foofu nga nekk ko ku nekk douane yow yaa ko bëgg yaa dem foofu c'est pas parce que yow da nga dem douane dafa am lu ma bëgg a foofu mm-hmm. c'est pas parce que da nekk douane ñoom ñuy teg argument ne ñoom ñooy dugal xaalis moo tax ñoom ñuy ëppale loolu du argument bu baax taxawul mm-hmm. pourquoi taxawul tey ñooñu boo leen génnee foofu muy douane wala muy impôt nga yóbbu leen enseignement dootuñ dugalati xaalis. Mhm. donc c'est la position qui fait que. Exactement. on ait de l'argent par conséquent un inspecteur des douanes un inspecteur de des des des des des des impôts. Mhm. un inspecteur du trésor ak un enseignant ñu bokk yem hiérarchie. hiérarchie ak un magistrat ak un inspecteur du travail ñooñu bu ñu yemee hiérarchie ñoo war a yem. traitement salarial maintenant ku si nekk mun nga am benn prime spécifique. Mhm.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 Euh, public le secteur informel surtout ak ñi nga xam ne ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts yooyu aussi ça demande de des des urgences des solutions euh, urgentes. loolu lu ma siy wax rek mooy sénégalais yi dama leen di ñaan ñu patient ñu patient euh, parce que gouvernement bi bi mu faloo ba léegi gis nañ chaque jour ñu ngi poser ay actes. Mhm. gis nañ ko si communiqué conseil des ministres. keroog gis nañ am na conseil des ministres interministériel boo xam ne wàllu agriculture la présider par le PM Ousmane Sonko bañ augmenté enveloppe bi yokku nañ ci trente trente trente milliards mu mhm. jógee cent vingt dem ba euh, plus trente milliards bokk na si ay dettes yu ñu ameel les opérateurs pendant trois ans derrière mu cumulé ba ay quarante trois milliards fay nañ leen ko ñu ngi waajal euh, donc campagne campagne euh, agricole bi donc loolu ay actes yu ñu posé la am na yeneen actes yu ñu posé ci pêche bi gis nañ ko. Mhm. mooy licence yi publier nañ ñi ko am. ñu am autorisation. dernière euh, publication bi amoon y avait plus de cent navires cent quinze bii nii gis nañ ci trente cinq navires nee nañ navires yu bari sax dañoo dem mhm. donc li ñu impulsé moo tax loolu di waaj a set parce que trente cinq navires dont cinq navires européens ça veut dire que pêche bi nekkul européens yi ñoo koy yàq mhm. mais ñun sénégalais yi ñooy dem def prête-nom àndi ay bateau chinois di pêcher loolu dañ ko war a dindi comme ça jën yi bari et gouvernement bi mu ngi teg ay yeneen acte gis nañ ne ñu ngi waajal tabaski bi hmm. am na conseil interministériel bu war a am hmm. fan yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi waajal pèlerinage bi ça veut dire que li nga xam ne c'est des courant courants hmm. état bi taxaw na si maintenant parallèlement pour les affaires stratégiques nag yooyu noonu pour le long terme état aussi day. jërëjëf di la remercier baax Ismaïla Kébé merci temps bi dafa ndaw. incha allah mën a développer yëpp mais bu ñu amee yeneen occasion ñu dugg si de façon approfondie a été maa ngi nuyu ñu seetaan ñëpp. di nuyu waa Sokone sama gars yi di leen di gërëm at waa département bi at waa Pastef yëpp waa Sénégal yëpp di ko sant bu baax sunu gan c'est un plaisir pour ñun ñu koy recevoir dig daje suba ak jàmm heure ak beneen gan jaa ngeen jëf merci beaucoup